liggéey bi nañ ko tëralee ak nañ ko doxalee mel na ni jamono yëpp ñu ngi ci waxtaan di ci réunion ba liñ ci jàpp mooy tànnoon nañ ci lu toll ci juróom-ñett kuréel yoo xam ne ñoom ñooy taxaw fii wàllu njàng mi loolu nag amoon na ay supervision yoo xam ne moom lañ superviseur yoo xam ne ñoom ñoom lañ génne woon ñu war ko superviser ba mu jeex mel na ni tamit heure bi ñu bëggoon a tàmbali muy 7 heures bi ñu xëyee tàmbali nañ ko amuñ ci benn jafe-jafe wax dëgg yàlla programme bi nañ ko tëralee woon mi nga doxee noonu amul amagul benn sooxe naka noonu waajaloon nañ tam kuréel goo xam ne bu sëriñ bi ñëwee sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér bu ñëw bu yegsee ñoom ñoo koy gàttandu wax dëgg yàlla loolu yëpp daal nañ ko euh, tëralee woon ñu ngi koy doxalee noonu tey ñaan suñ borom defal ñu ñu yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw allah bu fekkee ni euh, niñ doxalee ci wàllu kuréel yi dañoo tànn juróom-ñetti eh, kuréel yoo xam ne jàpp nañ ni matal nañ sart yi lu ci mel ni kuréel national bu isbu tarxiya ak kuréel régional bu isbu tarxiya ak kuréel 1B bu Touba ak kuréel 1 a bu ak kuréel 1 adolescent bu isbu tarxiya kuréel gi nga xam ne ñoo koy tëj nag mooy kuréel 1 bu daaray Thiès noonu lañ ko tëraleegum incha allah sëñ Tuubaa bu baax a baax ndaxte ñun moom ni ñu yàgg di euh, doxalee suñuy mbir rek nga xam ne dinañ ko organiser fi mu war a jaar yëpp dana fa jaar moo tax kuréel gu ci ne waxtu yi ñu war a jàng bien avant waxtu wi di jot dinañ leen fekk ñu toog ànd ak tey ngeen am na benn mbaar mu ñu yàgg waajal waajal kii yaa waajal ca ginnaaw fële boo xam ne kuréel yi war a jàng la ñuy nekk bu ñu fa nekkee ba seen waxtu jàng des cinq minutes ñu dugal leen ci biir salle bi ñu toog bu kuréel gi doon jàng noppee ñoom ñu tàmbali ñoom tamit ñiy jàng tamit buñ paree dañuy génnaat dem te mbaar moom nga xam ne waajal nañ fa ab durus boo xam ne tey mbooleem jànkatu kuréel yi ña nga fa di fa amal ab durus ñu war a jàng dugg jàng buñ génnee dem yeggale ñeneen ñi des dugg noonu daal lañ koy doxalee amuñ ci benn jafe-jafe wax dëgg sant wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant bu baax نبذت اللغابا لمولاي وحده قديما لمن وذر في كلة السنون نسبت بلا الميت بالحق مادحا بفرق ولا خلق ولا يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن wal ahadis al qudsi wa bi hurmati hurufil qasaidi